aujourd'hui en compagnie de bakkan Sek, le Saloum Saloum original, salum Saloum. Mais d'ailleurs, il n'y a pas encore euh, Taw amagul waaye xam nga ne Bakan euh, mi ngi denc jiwam boobu ba tey war a saxal gertem ñoo ngi xaar tuuti mu taw ngir mu mën a saxal Adja Fall bàyyeekoo Jurbel moom tamit euh, daanaka waa Ndakaaru ñun daal dañoo tabaski rek waa Jurbel ñëw te waa Jurbel mënoon nañoo toog ba ci kanam dafa juróomi fan sax soog a ñëw. waa Saalum tamit dañoo tabaski ñëw ci ngoon gi ndakaaru daal mooy affaire bi salaamaaleykum Bakane Seck. maaleykum salaam doom nday maa ngi lay déwénati. maa ngi lay fekkeel déwén. di déwénati waa Sénégal di déwénati fans yi di déwénati sunu mbokk yi tëdd ab ci hôpitaux yi di déwénati sunu mag yi ñi ñu jiitu ci aar suma frère Cheikh Joxaane ca Abidjan di déwénati ñëpp fans yi taxaw ci kaw tali bi. di leen wax yal na leen yàlla defal jàmm. amiin di déwéniti sama soxna. madame Ndiaye. madame Seck Maymuna Ndiaye. Uh-huh. Uh, Adja noo def. sant yàlla ak sëriñ Touba. ana waa Diourbel. waa Njaareem ñëpp nga fa di la nuyu Boubacar. mais Adja. mais xam nga Diourbel neexul. lu tax Saalum neexul. ilaha illallah Diourbel neexul Saalum neexul bu neexoon bu ngeen tabaskee di ngeen fa toog. xam nga lan moo tax foofoo neex. <laughs> plateau nga def bu neexoon. boobu maa lay tontul. bu neexoon acca nga li tax foofoo neex. Eh. foofoo saf. ñun la ubbee. waa foofa toj waa waaw mais xam nga da ngeen sonn ci yoon wi. yàgg ci yoon wi lool jóge Kaolack añ rek lakk yàpp rek daw ñëw. xam nga li tax foofoo neexul Kaolack neexul. Ah, heure ah, ah. boo xëyee. waaw di béggal doomu aadama yi ci àdduna bi yëpp. déggal loolu. mbax bin taj temps. boo dégg rek Saloum Sall yow yaa ngi ci biir wala waa Ndiarème. non 5-5 a ngi ci biir tamit. non waaye Ndakaaru la non 5-5 d'accord la waaye Bakka ah. xam nga ni ku bàyyi koo dëkk sëriñ Touba. waaw xam nga ni sëriñ Touba yi lépp. dëgg la. tubaar fa kàlla macha allah tax xam nga ni lii fi ne bu newoon foofu nag Boubacar du ñëw déggoo ma de. Ah. ndax ñu danoo yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul. waaw waaw yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall làmp xanaa waa Ndiarème yi nekku leen fii yéen. déedéet ngeen sotle ma. <laughs> waa njaareem ma nga njaareem nay leer waa Bakkan euh, maa ngi euh, gis ni yaa ngi prépare euh, Bercy bi yow ak Pape Diouf bu baax fu ngeen ci toll waaw ñu ngi sant rek Boubs comme li may wax rek bës boobu bësu Sénégal la du bësu Pape juuf du sa bés du sama bës képp kuy doomu sénégalais bës boobu sa bés la ndax sele Sénégal qui gagne donc ñu koy ñaanal mu àgg ceeg jàmm le 13 octobre ñu bokk kook sunu nawle yëpp nag sunu nawle artistes yëpp parce que bés boobu bésu ñëpp la sa bés la sama bés la bésu artistes yi la bésu àdduna la donc yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm amiin ñu àggaleeg sunu sogo di wax fans yi ñu ngi koy préparé bu baax nag mhm. sunu xarit yi nekk Amérique mhm. yi nekk Londres mhm. yi nekk Allemagne yi nekk Danemark ñu ngi préparé lépp bubs donc kon ñu ngi ñaan yàlla tàllal loxo yi di wax rawatina sama waa dëkk nag waa Kaolack ndàngaan dañoo bëri bagage lool ñu ngi partout ci àdduna bi man Bakane Seck seen doom seen xarit maa ngi leen di jox rendez ci bés boobu di ci sargal sama papa El Hadj Mansour Ndiaye ca Gambie donc bés boobu ànd ceeg sama waa kër Goro El Hadj Doudou Ndiaye Kumba Rose ñoom El Hadj Ndiaye Rose ñoom Arona Ndiaye ñoom Moussa Pathé Mbaye gaa yëpp ñu ngi koy préparé Pape Seck ca Allemagne. mais xam nga euh, bés bu toll noonu euh, daanaka xëy na dina diis ci artiste bi mais dina diis tamit ci ñu muy àndal naka ngeen euh, nekk ci préparatifu loolu nga xam ni moom moo di Bercy Youssou Ndour buy waajal Bercy moom ci boppam dina sonn ay nitam sonn ay mbokkam sonn ay xaritam sonn poosam sonn xalaatam sonn képp ku ko xam sax da ngay sonn yéen fu ngeen ci tollu ak naka ngeen ci toogee Bercy c'est grand c'est énorme et c'est un défi personnel et puis euh, pour Pape Diouf nekk na loo xam ni toll na foo xam ni war na ko def waaw comme li may wax rek euh, euh, Boubs jouer Bercy sant yàlla la ñun tolluwuñu foo xam ne nekk tey jii da nga wax ku am solo mooy sunu mag di suñu xalifa mu Youssou donc roy ko ak tàmm jël ay jikkoom donc moo tax Pape doon ñaan yàlla egg ci bés boobu muy Bercy donc li nga wax la rek dara yombul lépp loo gis ci àdduna da ngay góorlu rekk ñi fi nekk mooy doomu aadama yi fii ku fi nekk dara rek bubs ñii fayuñ ci kenn ñii ay jaam yàlla lañ comme ñun dañoo bàyyi seen soxla yi bàyyi seen lal yi te ñii ñoo ñu def dara sans ñii ñun duñu dara ndax ñii ñoo ñu def dara ñoom ñooy dagg seen billet yi ñoom ñooy ñëw ñooy fay ñoom ñoo ñuy teral ñii nga gis ñuy taxaw ñoom ñooy jël seen poche di ñu may donc lancement bi may wax mooy ñun artistes yi nañ leen gën a delloo suñu xel ci yàlla te dal am dal ki kii sa kii sa fans di la bëggee war na la mën a gis mu yomb lool parce que kookoo lay tiitaroo di xeex te xamoo ko kookooy reyante ci mbedd mi te xamoo ko donc kon kooku soo ko bëggee jaay affaire dangay ngay sa bopp te ñun nag lu ñu mës a song dañ koy daan de incha allah te gëm naa ne que bés bu ñu àndeek yow dem dinañ ko song dinañ ko daan ci kattanu yàlla mënuma teree dem incha allah dinaa ñëw jàpp ci le 13 octobre ndaxte pape sama pape la. ak man ah, ak yow. yow buub ñëpp nga. waaw <laughs> non du yow buub su ñëpp nga. dañ koy mayonnaise. waaw parce que nag. Uh-huh. am na lu ñu yàlla may. dëgg la buub su. Uh-huh. ci li ñu ne. Uh-huh. alhamdulilahi rabil alamina ba yàlla ñuy tudd. ñu naan dañuy tëggi Bercy. dëgg la donc loolu sant yàlla la. dëgg la c' est pas que Youssou Ndour dafa war a tëgg Bercy rek ñëpp dañoo war a tëgg Bercy. mais nag roy ko jaar ci ay tànkam. dalay lay gën a may encourage mm-hmm. nga jaar ci loolu ba mën a nekk dara suba yow tey danga ma indil benn single euh, boobu lu muy wax waaw morso boobu dama ci rendre hommage suma papa El Hadj Mansour Ndiaye yàlla na ko yàlla xare àjjana mm-hmm. e kooku nag dafa nekkoon king mm-hmm. maanaam géwél bu gën géer histoire am nag su ma koy wax mënuma xam lépp du sénégalais gambien la yàlla dafa def mu génn àdduna mhm. doomam nekk suma xarit muy Amet Ndiaye mënuma mhm. lim suma limee damay juum ak yaayam mhm. sunu yaay Salimata donc ak famem yëpp ma koy rendre hommage parce que man gàmbi laa dooree angle sin dob may profité di nuyu waa Mbayeen ak yenn waykat yi di dooree Gambie Youssou Ndour gàmbi la dooree Mbaye fay Faye la dooree Bakane Gambie la dooree lu ne gàmbi waaw xam nga gàmbi maa ngi profité sama mag bu jigéen dafa génn àdduna il a deux semaines ci ginnaaw Seena Seck yàlla ko yàlla xare àjjana et sama mag mu ngi sëy Gàmbi magu Babacar Seck sama doomu mag mu ngi sëy Gàmbi sama beneen mag mu ngi sëy Gàmbi donc peut-être yàlla moom moo def ay bagages Gàmbi ba nga xam ne ne que ñun suñu jaar-jaar mënuñoo fexe ba ku mel ni ay Abou Fafa mhm. seen kër laa yaroo mhm. fa laa defee lépp donc moo tax tey jii ñun suñu jaar-jaar parcours Gàmbi donc macha allah alhamdulilah rabil alamina. Gambia ñu dem ñu déglu morso bi et après may soog a wax ak Adja allez demal ba fële euh, bu ko defee gars yi daal di ñuy euh, envoyer le son euh, la balance j'espère que tout s'est merveilleusement bien passé kaay nii bàkkan képp ci santu Ndiaye rek ana taalibe Serigne Saliou yi waaw waaw ana taalibe Serigne Babacar Sy yes maa ngi leen may morceau bi yéen ñëpp Aïcha Aïcha bàkkan ci kaw gin ki tat sakit rat kin san son kuy njaayeen son maa ngi lay delloo njukkal maa ngi lay delloo njukkal maa ngi lay kiin ci ngéwél maa ngi lay bàkk ci ngéwél gay nee nga dëgg la Mouhamed Ndiaye gay nee nga ma dem ba Gambia si nabu sal nobal nga ah garmi nga waaw Alaaji Mansour Ndiaye sa bay la muy góori Gambi njëkk a juddu léewuloo kenn konoon tolli ma ci njaayeen yow waxal ci njaayeen ñëwal ñu dem kaay tolli ma loolu dëgg la tolli ma yow ñëwal hey sama gars yi les go sant Njaay jugal yëngal. Aliou Bessé dafa yéwén. Mansour Njaay. jógal yëngu ay salikaay lay waya lu ko waral loxo yi ci ndigg li loxo yi ci ndigg li loxo yi martir mbas mi waay lu bees léegi amatul bopp ci ndigg ay ca ku sant njaay lay waya dëgg la Seynabu njaay lay waya ay jaw njaay man Yaasin njaay jógal yëngu ma jigéen lu am yaa ko rek jënd sal kuy taawoo taaju mu jigéen ju ma góor yaay kontaan ci adam taaw mu sant lay waaye adamay taaw dagi na dagi na batal ci bas aca ndigili leen jabaraan jabaraan hey loxo yi ci ndigili loxo yi ci Merci beaucoup Bakane Seck rendez-vous est pris la sortie et puis rendez-vous est pris avec Bakane inchallah bu euh, ñuy dem Bercy inchallah ñoo àndandoo rendez-vous à Saraba Saraba léegi avec Pape Diouf yaa ngi jëm ni Saraba ak Pape Diouf maa ngi jëm Saraba di wax fan si yëpp nañ ma fekk Saraba mais Pape mënoon naa jaar bala mu dem Saraba mu ngi ñëw ah kon ñoo ngi koy xaar léegi jaajëf ñoo ngi koy xaar merci beaucoup Balago Boys